Ibrahima ah ok euh, bon eh, bon tata man souvent man euh, euh, li may waxee rek mooy dafa mel ne bon si intersection bi pour les dafa mel ne ñi nekkoon ci car rapide yi bii moom c'est L200 bi la ñuy incriminé waaw bii moom L200 bi la bis bi moom victime la bon peut moom li mu ah, ah li mu ko mën a reprocher rek mooy que moom il était protagoniste dans l'affaire même bu fekkee ne tooñul mais la moindre des choses aurait été que bon am na comme am na benn bus bu bu bu bu daanu te peut-être y a des des des des en danger que mu le minimum qu'on aurait pu attendre de lui c'est mu taxaw. moom peut-être foofu foofu foofu rek la faute maintenant pour en revenir à. amul amul di xëccoo euh, ni doo jàll fii loolu moom euh, bu ko defee rek dafa tooñ. waaw dafa tooñ dafa tooñ déjà en en kii amul de réagir de cette façon moom aussi amul di naan euh, kenn du ko doublé. c'est ça waaw mais xam loolu mooy indi Sénégal problème bi. maanaam nit ñi amatuñ benn to danga maa tooñ dama lay. dama lay mu tiire woon fii ci station bi c'est comme ça que ça s'est passé yaa ma tooñ war maa war a jàll yaa war a jàll mu génnee fetal tiire ko mhm. il faut que quand même yi toll benn niveau boo xamante ne nii même bu la nit tooñee yow sa très sa réaction warul nekk dem ci teg loo xamante nii nit mun na ci ñàkk ba kanam c'est ça mhm. non justice waaw waaw mhm. pour euh, le, effectivement le comportement des chevaux tata de, c'est devenu de plus en plus récurrent maanaam ah accident yu bari Euh, tata yi dañ ciy impliqué wu et comme je le dis souvent dafa mel ne chauffeur euh, chauffeur tata yi je crois que c' est les chauffeurs des cars rapides. ay njagañaay ñi nekkoon cars rapides ak njagañaay c' est eux qui sont reconvertis dans les dans les tata. Mm-hmm. et boo seetloo aussi il euh, y a de moins en moins d' accidents yoo xam ne da nga ciy gis ay cars rapides ak njagañaay. Mm-hmm. donc de de de plus en plus li ëpp li ëpp kii ci ci ci accident yi ay tata la bon maintenant je sais pas qu' est ce qui se passe parce que am na ñoo xam ne dañuy naan pont peut être nañ leen di. ni leen di cest dire la manière dont elle, dont on les dont les travailler. Mm-hmm. Euh, il y jour il y a quelques u on avait eu un invité jour boobu dama waroon def chronique à la télé. Mm-hmm. on avait eu Djibi Ndiaye je crois il s'appelle Djibi Ndiaye. c'est le président de Aftu ou quelque chose comme ça. donc euh, bon par le hasard des choses on est tombé sur ça ñun ñëpp voilà ce jour là mm-hmm. on a déversé notre trop-plein de li nga xam ne. ay ressentiment yi lañ amoon ci ci bus Tata yi mais damay dégg à chaque fois que euh, chauffeur yi ak en tout cas les de Tata ñuy grève dañuy mettre en en kii la manière dont on les fait travailler. seen condition de travail parce que voilà les conditions de travail parce que quelqu'un qu'on réveille à 3 heures du matin 4 heures du matin. Mm-hmm. Hein? des heures du matin ba heures 5 heures boo yeewoo euh, tu tu trouves les les en circulation. Mm-hmm. kooku mais ak liñ koy fay wala même am na ñoo xam ne sax ba vingt heures vingt une heures parce que oto bu jógee Wakam par exemple war a a dem ba ba Zac Mbao xaw wala wala pas quoi donc vingt trois heures à la limite kooku vingt trois heures dina ko fekk ci yoon bi mu war a jógaat encore cinq heures du matin kooku à la limite bu demee ba yenn moment yi mais il devient abruti mm, il devient abruti mais c'est des c'est des êtres humains comme tout le monde donc loolu lu ñu war a lu ñu lu ñu war a xoolaat la c'est je crois c'est un ensemble de de yoo xam ne qui doivent trouver solution et l'autre jour je crois ci émission bi émission bi passé waxoon nañ ko les assises de de de la route xam nga les assises de la sécurité routière ou les services de transport yi ñu war a kii donc war nañ ci boole ñooñu ñëpp c'est tout l'écosystème des transports qui est questionné les chauffeurs les receveurs les usagers les propriétaires les propriétaires de bus parce que affaire bi nekkul rek Euh, la gestion ponctuelle comme euh, émotionnelle bi nga xam ne mhm. sénégalais moom lañ def tey gis na accident y une vidéo qui circule aujourd'hui tout le monde va en parler demain les gens vont en parler quelques jours on en faire peut-être benn appel de une wala affaire yooyu mhm. mais et puis c'est fini on va plus en reparler mhm. et alors que les accidents sont en train de faire des en un mois c'est plus de cent personnes qui sont peut-être décédées ak ak ak ak feneen ak feneen. Mhm. donc loolu lu ñu war a xoolaat la. Mhm. lu ñu war a xoolaat la Pape Sané bus yu njëkkante wala ay oto yu njëkkante ba jur accident rey nit euh, du loo xamante ni lu bees la fii Sénégal heureusement ba c'est pas le cas mais ba tey comportement yi changé wul tey peut-être il va falloir que état bi sévir bu baax a baax bu ñu bëggee comportement yi changé. non comportement yi faw pour ñu changer il faut que les sanctions. Mhm. soient très exemplaires. c'est-à-dire calpe bi il faut ñu dóor la ci bu la amandé. dóor la ba nga xam ne. yow boo ko fayee da nga talati leneen. Mhm. lu dul di jël oto di ci foo. boo reyee nit ñu dóor la ci kaso bi une peine bi nga xam ne soo ci génnee da nga réel parce que en fait le problème qui se xoolal chauffeur yi nga xam ne dañuy dugg des fois da nga gis ñu ne la nit def na accident ci biir accident bi y' a sept personnes qui sont décédées. huit oui. personnes. àtte mhm. nañu waa ji dóor nañ ko six mois de prison. waa ji génn euh, une semaine deux semaines nga gis ko. mu jëlaat encore beneen oto. beneen waaye woo ko ne ko kaay. jëlal oto bi nga dem. c'est-à-dire tant qu'on règle pas ce problème là. Euh, ni ko Ibrahima waxee il faut que tamit le secteur de la transport état bi tamit na ñeem jël ses responsabilités dugal ci loxoom. réguler ko de telle sorte que ni ñuy réguler nii presse bi nii nii nii dugal seen loxo. nañ secteur presse kii transport bi nañu war a réguler bu baax a baax a baax. de tal sorte que ces permis délivrance su permis yi. ñu xoolaat ko bu baax a baax a baax. Mhm. Euh, visite technique yi nga xam ne en voiture en voilà ñu xool nuñ koy da parce que da nga fi gis ay oto yi nga xam ne leer na ma man li ma leen di màggee bëriwul te oto yaa ngi daw waaw ñi ngi daw ci dëkk bi loolu yëpp war nañ ko xoolaat accident nag boo ko defee wala commission de retrait retirer sa permis baam looloo gën a ñaaw da toog ñi ne la waa ji la commission de retrait du permis retirer na permis mais nga gis waa ji yore basang di dawal ci dëkk bi. basang kay moom bëri na ci réew mi ah. <laughs> moom bëri na waaw damay dégg basang rek balaa ñu may laaj lii basang. si loolu laa dogal ñëw sax ak yow maam ah. parce que euh, tey jii bu nekkee euh, Sidi Diop ñu médiatiser ko ni yorul permis yorul assurance ak yeneen ak yeneen mais euh, souvent bëri na ci tali bi ñoo xamante ne këyit suukar sax yoruñu ko te pourtant ñu ngi daw en toute impunité. Ah. wala oto yi ñuy dawal sax du présenter benn benn benn en tout cas mesure de sécurité day leen kii mënut am visite pourtant ñu ngi si tali bi. waaw mais rek quand même Sidi Diop moom dañ ko dañoo waroon a jël exemple ci moom dóor ko un mois ferme au moins. Mm-hmm. parce que ñàkk permis amoo assurance ba pare nekk si tali bi di daw. loolu jàpp naa ne tegul teguwul fenn. il ne foo pas que ñu bëgg a singli rek. borom tata yeeg borom njaganjaay yeeg borom car rapide yi. Mm-hmm. ñeneen ñi nga xamante ni ay célébrité lañ ba pare def loo xamante ni teguwul fenn xam nga. Eh, taf taf ñu cent cinquante mille francs lan la ci Sidi Diop kooku du dara mm-hmm. te lu mu def mais euh, jàpp naa ne surtout ak contexte bi ñu toll nii am na ñoo xam célébrité yoo xamante ni ci ñoom ngay jaar jox euh, exemple ñeneen yi woon leen ne accident yi mënatuñu koo tolérer mm-hmm. mais Sénégal masla beeg naxante bi moo bëri am na yoo xamante ne nii bu ñu nee teguwul ku ci jaar mais dañ la war a sanctionner de sorte que keneen ku ci bëggoon a jaar wala ku ci xalaatoon a jaar boo gisee leen nga doo ko def mm-hmm. di di di di di éduquer par la euh, par l'exemple di joxe ay sanctions yoo xamante ni mérité nañ mm-hmm. mais su ñu gisee par exemple li euh, Pape Sané doon wax euh, ñaari bis yu doon njëkkante ba kenn benn bi rey benn benn xale xale bu ndaw mais waa ji xaw ma trois mois lañ ko tëj xaw ma six mois mais mais mais mais mais loolu du c'est pas exemplaire mais également tamit parce que ñiy dawal oto yi nekkul ñoom ñoo leen moom mm-hmm. souvent dañuy bu nekkee ci cadre transport en commun bi la mm-hmm. sanction bi ñu bañ ko yemalee rek tout simplement ci chauffeur bi nga xamante ni moo yor mm. bis bi mm-hmm. transporteur bi ku ko jox tamit am na ci une part de responsabilité parce que souvent ki ñuy jàpp mooy booy bi nekkoon ci euh, volant bi. Mhm. Euh, lu mu def c'est irresponsable alors que ki ko ki ko jox oto bi moo gën a xam jikkoom moo gën a xam mooy ban genre nit. kooku jàpp naa ne waruñu rek jël ay sanctions teg ko ci kële yóbbu ko prison amande ko léegi la transporteur jël bus bi jox ko keneen ku ko gën a irresponsable le même cas se reproduit. Mhm. da nga jàpp ni kon euh, Sidi Diop bi dafa waroon nekk exemple pour ñi nga. xamante ni ñiy dawal oto te yoruñu kayit xam ni ñu ngi encourir ay risques yoo xamante ni yu yu yu rëy la. ah mais bien sûr amul oto ku amul permis. lu tax ngay dawal. teguwul fenn. amul permis amul assurance. amul permis amul assurance. ñàkk assurance moom sax man moom laa mënut a construire di bu nekkee bu nekkee bu nekkee bu nekkee loolu kay dañ koy tolérer. mooy accident yi na gën a redoubler. c'est ça c'est ça. c'est ça en tout cas c'était une occasion parce que moom comme moom c'est un kii la. c'est une célébrité yéenewuma ko dara waaw ku ñu ku ñu xam la donc buñ moom buñ ko sanctionné ban yan sanction yi. ça peut faire. sa peut faire tilt quoi au niveau des au niveau des autres. d'accord mhm. en tout cas euh, état bi ñu ngi xaar si ñoom. Euh,